Guy Marius saña ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. am nañu mbégte lool dalal la ci euh, matinalu Rewmi FM tey alors gis nañu la euh, fan yi nga ànd ak euh, maire Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Diaz jëm ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex ni ñuy séddoowee suuf si ne ci booru géej gi ñu naan ko littoral tey Guy Marius ndax mun nga wax sénégalais yi lay déglu littoral boobu ci ban situation la nekk. dama bëgg a fàttali mbokk yi ñuy déglu ne FRAPP France Dégage bi ci xeexum caxat-caxatee suuf du tey du démb du barki démb yaa ngi di fàttaliku ay weer ci ginnaaw boobu sax tëj boobu sax kenn tëjuma woon ci camp pénal ñun waa FRAPP ñu ngi àndoon ak waa Tivaouane Peulh ak waa Gàddaay ak waa Guéréw ak waa Kiñaabuur ak ñeneen ak ñeneen ci naka la ñuy fexee ba aar askan wi ci samba boy yooyu nga xam ne dañoo bëgg a caxat seen suuf ñaareel bi balaay sax euh, bës bi nga xam ne ci lañu ànd ak Barthélemy Diaz mu euh, wan ñu doxantu ci corniche bi gis ngeen ñu def ci benn conférence de presse boo xam ne ci wetu euh, liggéeykatu PCC yi ak waa ABS amoon na fa waa kiña Kignambour waa loñ ak waa Dabia ak waa Nguéniène ñi nga xam ne ñoom itam ñu ngi joytu mbiru suuf kon nit wala mbootaay bu mel ni FRAPP day dox ci dëgg dëgg boobu moo dëgg Barthélemy Diaz la wala dëkk waa Dabia la wala dëkk waa Balagulu la wala dëgg dëgg ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen benn ñaareel bi li nga xam ne ñun moom la ñu xam ba pare gis ko démb ci euh, géeju euh, Ndakaaru muy géeju euh, Mermoz sacré moo di wax dëgg yàlla dafa am benn mafia boo xam ne ñi ci bokk mooy ñi nekk ca kaw a kaw état bi am seeni complice ñuy jàpp suufu askan wi di ko caxat-caxatee bàyyiwuñu benn suuf ci Sénégal ba ci suuf bi nga xam ne moo nekk ci géej gi or nag <laughs> loolu moom dafa xaw a doy waar lu tax mu doy waar moo di ne yoon dafa wax ne suufu géej bi euh, suuf suuf boo xam ne la euh, c'est inaliénable c'est imprescriptible maanaam ñun ñëpp ko bokk kenn mënu ko jaay d'accord euh, na donte politiciens yi fexe nañ ba yokk ci yoon bi benn article boo xam ne dañoo wax ne président de la république mën na déclasser euh, li ñuy woowee domaine public maritime domaine public en fait naturel loolu la président yi def ñu déclasser euh, maanaam suufu géej bi ba nga xam ne ngeen gis ci ay hôtel ngeen gis ci ay kër ngeen gissi daal yoo xam ne warul woon am ndaxte intérêt général maanaam intérêt askanu Sénégal mm. moo sut intéret diw ak diw ak diw bi nga xam ne Sall la sant wala APR la bokk mbaa Benno Bokk Yaakaar wala xaritu président maki Sall or géej dafa bokk ci li nga xam ne day suuxat wérgu yaram day jàppale nit ci wàllu wérgu yaram ci bien-être am ci bonheur am d'accord ci tedd ngam euh, bu fekkee en fait euh, mun nañ ko waxee noonu ba nga xam ne kan munuñu bay seetaan ba nga xam ne fii ak ay at suñu doom yi dootuñu mun euh, xam li nga xam ne moom mooy ndoxu géej lu muy saf dootuñu mun a xam en fait dox ci tefes lu muy saf ndaxte rek jaay nañ lépp aaki moo nañ lépp golo di bëy baaboon di dundee loolu daal la gis foofu euh, ca géeju Mermoz Sacré-Cœur maanaam aaki moo d'accord li nga xam ne ñëpp ko bokk euh, limu nit bu tuuti d'accord bëgg a aaki moo suufu géeju suufu 16 euh, millions de citoyens sénégalais. muy corniche bi alors architecte bi di Pierre Goudiaby Atepa moom itam euh, soobu ci xeex bi yàgg na euh, wax na ay mbir yu bees fan yi ñu génn niki noonu journaliste bi Dima Jambal Diagne yooyu la mbir bu fekkente ni lu wér la mi ngi xamle ne kon séddoo bi ca kaw la tàmbale ni nga ko waxee loolu itam sabab collectif bi sàmm littoral bi wax ne dafay def plainte contre état du Sénégal ndax mun nañu jàpp ne FRAPP ànd na ci loolu xëy na sax dina ci bokk. FRAPP France dégage ànd na ci bépp jéego d'accord lépp lu ñu mun bépp mébét bi nga xam ne dina tax benn mbir mi leer waaw ndaxte nañ ko wax dafa war a leer lii suñu mbokk pulaar yi di wax naan yoo làpp nay leer dañoo bëgg mbir yi leer te lépp li doomu aadama doomu Sénégal def tey jii nii moo xam dem yoon wala organiser jury citoyen comme ni ñu koy proposé ci wàllu suuf si ak ñoom seen ñun waa FRAPP loolu yëpp dinañ ko dooleel ngir ñu xam lan mooy dëgg ndaxte balaa nga xool looy def naka ngay soppee affaire bi wala naka nga koy joyante foog nga xam lan moo am waaw ku am ak nu mu ko amee ak fu mu ko amee ak kan moo ko ko jox lan moo des ak ñoom seen euh, donc ñun euh, lépp li nga xam ne daal dina tax en fait ñu leeral affaire yi ñu xam dëgg bi d'accord dinañ ko dooleel ndaxte ci kaw dëgg lañu ñu mun tabaxee euh, maanaam beneen Sénégal Sénégal boo xam ne suufam ak suufu géejam dinañ ko saytu ci anam boo xam ne dëppoo na ak njëriñu askanu Sénégal et non njëriñu juróomi nit fukki nit téeméeri nit. Mhm. da ngeen di ànd ci xeex yi ñu jot a sumb wala da ngeen di xàll seen yoonu bopp def seen xeexu bopp aussi ngir euh, dakkal euh, caxat caxate gi ci suuf. li kenn mën ñaar ko dàkk boo gisee barki démb ñu dem seeti euh, maire Barthélémy Dias ànd ak moom ci géeju maire mu Sacré-Cœur loolu day rek firndeel ne ñun bëgguñu dama suñu bopp. boo gisee balaay sax ñuy dem seeti euh, maire Barthélémy Diaz ñu fexe ba waa Kignanbour waa waa Guéréo waa Nguéniène euh, waa Dabia ak ñoom seen euh, waa Tivaouane Peulh ñu def benn say c'est parce que xam nañ ne li kenn mën ñaar wala ñett ko dàkk ñun jàpp ñu ne FRAPP moo am dëgg moo am doole dañoo jàpp ne dëgg bi ngir mu feeñ nañu boole ñun ñëpp suñuy doole buñ ko boolewee dinañu may doole boo xam ne ah lu ñu wax état dina ko def ndaxte nag dafa jot. caxat-caxatee bii nga xam ne moom la ñuy caxat-caxatee suñu suuf ba ci suufu en fait géej Euh, dafa doy euh, ngir euh, war nañ ko dàkkal daal. Mhm. alors bu ñu xoolee mbirum suuf yemul rek sax ci état ndax yenn saa yi ñu tudd ci collectivité locale yi maanaam maire yi muy wane ni kon mbir mi problème national la te itam problème bu xóot la ci sa xalaat nan la ñu war a def ba saafara ko mbir mi daal di faju ba faaw. bu peccum liir daal rafetee ndey ji moo jàpp en fait ci mbagg donc mën nañ kon dolli ne peccum liir bu ñaawee ah ca ndey jalat itam. donc euh, bu ñu duutee baaraam euh, maire yi collectivité locale yi ñuy def naka su dul ci wàllu suuf dafa fekk ne dañoo am benn royuwaay boo xam ne doyul royuwaay muy état état du Sénégal ñi nekk ca bopp ja jiital ci président Macky Sall moo doxalee naka su dul noonu ci fànn yépp rawatina ci fànnum saytu wu suuf te loolu wax dëgg yàlla war na bett ku nekk ndaxte président Macky Sall ci boppam moo waxoon ne jafe-jafe yuñ koy tiis bés bu nekk téeméer boo jël juróom-ñeent fukki mbiru suuf la président de la république Macky Sall moo ko wax waaye mbir mi lu mu wone mooy dafa ci tus donc président Macky Sall mi nga xam ne day jëfandikoo signature am ngir signal ay mbokkam ay xaritam d'accord ay xëy na ñi koy jox xaalis ay ñi ay ñi nga xam ne ñoo koy jox budget de campagne électorale ay xëy na ñi nga xam ne euh, ñooy ëmbal ñoo koy ëmbal sànkalam wax dëgg yàlla euh, signature boobu euh, bu defee noonu c'est normal que maire yi tamit jëfandikoo seen signature ci anam boo xam ne voilà dañuy dañuy defar ñoom seen sànkal d'accord te loolu dëppoowul ak njëriñu askan wi léegi nag lan moo ci war ñun waa FRAPP France Dégage jàpp nañ ne benn ba ñett lu mu néew néew néew euh, moo ñu war jamono ji benn ñu dàkkal joxe suuf ndaxte mbiru suuf Sénégal moo xam suufu tefes ak suufu biir Sénégal lëj na lëj joo xam ne wax dëgg yàlla waratuñ si dolli dara loo ci dolli mu gën a lëj donc benn nañu dàkkal joxe suuf ñaar nañu def audit foncier maanaam euh, li nga xam ne xas nañ ko ba joxe 1960 ak léegi nañ ko seet setantal xool lan la ñu joxe lan la ñu joxewul nu mu toll li ñu joxe lan moo si dëppook yoon ak lan moo si dëppoowul ak yoon ñu def donc audit foncier boobu maanaam seet seetantal d'accord li nga xam ne moom moo am ci suuf fan la bokk kan lañ ko jox kan moo ko jox li ci des lan moo ci jaar yoon ak lan moo lan moo ci jaarul yoon beneen bi ginnaaw euh, boo dàkkalee joxe suuf ñaareel bi nga def audit foncier mooy nga am lu ñuy woowee code foncier waaw code foncier ni mu amee code de la route xam nga boo amee code de la route coow du bëri boo jàddee fii ñu ne la sens interdit boo fa jàddee ñu jàpp la waaye code foncier <laughs> dafa mel ni euh, dañoo nekk ci numbelaan joo xam ne ku euh, maanaam ku mën sa morom duma d'accord jën yu mag yi di lekk jën yu ndaw yi segg yeeg bukki yeeg yooyu waaw di euh, di rey mburtu yeeg yooyu donc ñàkkum code de la route boobu. li tax mu am c'est parce que ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi bëgguñu dara li nga xam ne beneen di tënk donc moo tax ñu fexe ba cent 1960 ak léegi amul code foncier moo tax nag ñetteel bi nga xam ne ñun moom la ñuy teg ci table bi foog ñu am benn code foncier boo xam ne mooy naan doo jàdd fii doo jaar fii doo joxe lii doo def lii ngir affaire yi leer mu tënk ñi nga xam ne ñoom ñooy signé ndaxte comme ñoom seen signature dafa woyof comme ñoom seen signature dafa yolom boo xamee ne politicien boo ko dénkee réew mun na jël signature bi jëfandikoo ko ci anam yoo xam ne dëppoowul ak ma réew dëppoowul ak askanu Sénégal ah nga tënk ko ngir tënk ko nag code foncier faw mu am. nga jàpp ne mbir mi aussi ci système la lalu euh, ndax euh, dafa yaatu. waaw 1960 euh, ak léegi boo xoolee li ci biir mbir mi dafa dafa mel ni benn mafia mafia boo xam ne waaw da nga bëgg a joxe suuf. nga joxe ko ci anam boo xam ne dëppoowul ak yoon nga jox ko sa xarit waaye pour euh, en fait euh, nga am ñoo xam ne dañu la jàppale bu coow jibee ah nga mosal si tuuti benn kilifa diine euh, nga mosal si tuuti benn groupe de presse nga mosal si tuuti benn haut gradé armée nga mosal si tuuti ak ñoom seen xëy na sax ay mouvement citoyen d'accord ak ay parti opposition nga xam ne coow bu diggee kilifa diine bi ñëw def benn homélie bu dee prêtre la wala benn xutba bu dee kilifa diine musulman la journaliste bi maanaam groupe de presse bi ñëw jéem a dëggal fen d'accord ah euh, bu ñu nee waaw nañu génn ñii ñu ngi génn ñu ngi marche euh, mekki généraux yi nga xam ne euh, policiers yi nga xam ne bénéficié nañ ci suuf soo xam ne lewul du dëgg du yoon ñoom itam ñu yónnee seen i policiers ñu dóor askan wi doyul de juge yi ñu mosal leen wala boog ñenn ci juge comme ça affaire bi bu eggee en fait ci kanamu yoon ah, ñooñu itam fexe ba Euh, askan wi du mos a am ndam noonu la tëddee 1960 ak léegi loolu mooy système moo tax nag faw askan wi ubbi ay gëtam xam ne système bii nga xam ne dafa ëmb ñenn ci politiciens yi ñenn ci société civile ak ñenn ci mouvement citoyen yi ñenn ci kilifa diine yi ñenn ci woykat yi ak géwél yi ñenn ci xawma ay groupe de presse ak ñoom seen ba ci l'armée bi ba ci ñi nga xam ne ñoo war a àtte système boobu du ñu mës nangu ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi bu ñu wàccee mu am keneen ku bees koo xam ne day naan damay toj kër sàngam damay toj kër sangam damay toj kër sangam ndaxte fi mu nekk ci tefes bi du dëgg du yoon dinañ fexe ba dem ba wàcc ngañ toog waaw dinañ fexe ba six wàcc waaye neuf na ko remplacé waaw. donc dinañ fexe daal ba góor ak jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo bëgg soppar ñi saytu wil suuf si ñoom ñoo bëgg a yoonal d'accord suuf si nga xam ne pàcc yi nga xam ne joxe nañ ko ñooñu dinañ fexe daal ba buñ bu leen askan wi fal wala askan wi bu ñu leen falee na am ko d'état électoral putsch électoral wala ñu fexe ba jël ay parrainage yoo xam ne dinañ dàq ñooñu ci euh, maanaam ci élection présidentielle wala élection législative donc affaire bi système bu rëy a rëy la mafia bu rëy rëy la askan wi nag foog mu ubbi gëtam xam ne kon ah li muy xeexal lu am doole la waaye nag kuy bëree daan donc foog ñu ànd bëri foog ñu ànd sàmm suñu suuf sàmm su sàmm suñu tefes ngir suñuy doom ak suñuy sët ah mën a xam dox ci suufu géej ndoxu géej bi di ñëw ci sa tànk lu muy saf ndaxte bu ñu moytuwulee bu ñu toogee seetaan suñuy doom duñu mës a xam euh, ndoxu géej ndax am na xorom wala ndax am na suukar. alors ñu ñëw ci mbas mi nga xam ne Sénégal mi ngi koy dund boobaak léegi am na ñetti weer noo jàngatee xeex wi ni nu ko doxalee ak itam yorin wi ñeel kilifa yi. président Macky Sall dafa laaj. tey jii nii ñu ngi am lu ëpp juróom fukki doomu aadama ci Sénégal yi gaañu yal na leen yàlla yërëm maa ngi jébbal sama njaal ñi nga xam ne ñoom ñooy seeni mbokk waaye président Macky Sall 2012 ak léegi bu saytu woon ci beneen anam am amu Sénégal budget wu Sénégal d'accord Euh, du ñu am lu toll ci lu ëpp juróom fukki doomu aadama yu gaañu tey jii nii ndaxte kat président Macky Sall dafa bokk ci femme ak homme politique yi nga xam ne politiciens yi nga xam ne 1960 ak léegi dañoo jiital ñoom seen tedd nga seen teranga ci kaw njëriñu askanu Sénégal moo tax nag ñu xañ askanu Sénégal. médecin yu doy infirmier yu doy gants yu doy masque yu doy appareil respiratoire yu doy nu ñu leen ko xañee mooy cëral seen bopp ay fonds politique cëral seen bopp ay euh, chargé de mission yoo xam ne amuñu benn njëriñ cëral seen bopp ay HCCT euh, xawma conseil économique sociale et environnemental commission nationale du dialogue des territoires ak ñoom seen yi nga xam ne amul benn njëriñ lu dul di tappale mbiru politicien di fa dugal seen i mbokk seen i xarit ñeneen di jàppale ci wàllu politique noonu la ñu xañee système mu santé wér-gu-yaramu Sénégal noonu la ñu xañee kër docteur ci gants yu doy personnel bu doy bu qualifié ci jumtuwaay yu doy ngir mën xeex ni mu waree li nga xam ne moom mooy mbas mi kon boog bu yóbboo ñu wax ne bëri na ñi dee ci mbas mi ak ci yeneen jàngoro yi wax dëgg yàlla du ndogalu yàlla ndogalu ñi nga xam ne mooy mafia bi euh, nekk ci bopp réew mi bi ngànk réew mi di ko seeñu di ko seeñu ba mun mënuñu am euh, am am bu doy boo xam ne day euh, jàppale waa kër docteur infirmier médecin ci jumtuwaay ak ñoom seen. Mhm. ñu wax ci mbirum George Floyd ngir jeexal euh, doomu Amérique boobu nga xam ne nit ku ñuul la ñu faat ko yow noo jàngatee ca laaralu njiitu réew Afrique yi wala ñu ci gën a bari. waaw ah, moom kay. Euh, tekkaaral bi nga xam ne li ëpp ci euh, ndaw yi askan yi ñu fal ci biir Afrique tekkaaral boobu ah foog ñu ñaawlu ko ba fu ñaawlu yam ndaxte ñoom ñii nga xam ne ñoo ne tekk tey ñoom ñoo yàqante woon naan je suis Charlie nañ ko fàttaliku ñoom ñoo yàqante woon wax wax je suis Charlie tey jii nii ñu ne pat waaye pataaral boobu ak tekkaaral boobu li ko waral benn ba ñaar ba ñett la xëy na benn bi mooy président Macky Sall moo la gën a xam ne ñenn ci policiers yi ñoom ñoo rey Elimane Touré ci commissariat bu Port rey Pape Sarr ci commissariat Thiaroye rey ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Timéra ak autopolice rey ki nga xam ne mooy Seck Ndiaye ci néegam ak juróomi policiers yi ko dóor ba. bakkanam rot ak ñeneen ak ñeneen ndaxte liste bi gudd na waaw léegi président boobu xam loolu bu dee nit la bu dee deret mooy daw ci biir yaramam est-ce dina am fit wax je suis George Floyd musul wax ne je suis Pape Sarr je suis Abdoulaye Timéra je suis Seck Ndiaye je suis xawma Elimane Touré ak ñoom seen loolu mooy benn jafe-jafe te li wokk Sénégal moo xuri Cameroun ba ca Côte d'Ivoire ba ca Bénin ba ca Togo waaw fépp fu ñu dem bës bu nekk mu am ay africain ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi leen di euh, maanaam takk der yi ñu ngi leen di rey ñu ngi leen di violenter ñaareel bi mooy euh, suñu njiit yi ñi nga xam ne ñun ñoo leen sal euh, ñu mel ni président Macky sal dañoo amul fit dañoo amul fit ci ne dañoo ragal. bu ñu waxee je suis George Floyd euh, Donald Trump ne leen ah, ah comme da ngeen di wax je suis George Floyd li ma leen war a en fait du ngeen ko maanaam du ngeen ko jot dootuma leen jàppale d'accord gis ngeen Donald Trump bu buggee génn OMS nee naan génn naa OMS waaw comme ñun nag ay xaaraankat lañu maanaam euh, politicien africain dafa tabax Afrique ak suñuy réew ñu mel ni ay yelwaankat ay xaaraankat ñoo xam ne ndeysaan dañ leen di jox xaw ma asaka ak ñoom seen d'accord donc doo am fit moo tax tamit ñu war a gaaw a wàccee ñi nga xam ne ñoom ñooy Ouattara Macky Sall ak ñoom seen ndaxte boo buggee wax dëgg ci àddina bi hmm. wax ne du dëgg du yoon der bu ñuul ñu koy buntu xatal fu nekk ci àddina bi foog nga moom sa bopp d'accord foog nga dépendre ci yow am indépendance am souveraineté ñetteel bi nag boo waxee je suis George Floyd a ah, da ngay ragal sax askan génn ci mbedd bi def nii nit yu ñuul ak nit yu weex yi nga xam ne ñoo nekk États-Unis ak ñoo nekk yeneen réew ci tugal donc tiitaange boobu la ñu am te comme ñoom dañoo nekk ci xawma couvre-feu ak état d'urgence maanaam joxewuñu wuñu waaye bëgg nañ tëj làmmiñ ak gémmiñu doomu aadama yi ba kenn du masque kenn du sitting xam nga ne bu boobaa da ngay daal di tiit. Hmm. donc moo tax ñu ne pakk ñu ne tekk waaye tekkaaral boobu ak pataaral boobu nekkul dara lu dul tekkaaralu warkat ndaxte nit yu ñuul yu nekk ci biti Afrique. d'accord lu mel ni États-Unis damay fàttali ne Union africaine dafa wax ne jaspora bi jaspora africaine mooy suñu juróom benneelu gox bu dee Afrique juróomi gox la Afrique mu ngi am juróom benn gox juróom benneel bi mooy jaspora bi maanaam nit yu ñuul yu nekk fépp ci àddina bi te nit yu ñuul yu nekk euh, États-Unis bokk nañ ci diaspora jooju donc pataaral ne tekk ne pat jamono ji nga xam ne ñu ngi noot ñi nga xam ne ñooy der yu ñuul yi nekk États-Unis ndax rek yow da sàmm sa njëriñ ndax yëpp ndax rek yow amoo fit amoo fulla amoo fayda amoo jom loolu trahison la loolu euh, taxawaayu warkat la da nga war sa der bu ñuul da nga war saw askan. jërëjëf Guy Marius Sagna amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi ñu ngi lay sant bu baax. man maa leen di sant di leen gërëm.